saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat bu mag ba diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 ba nu tudde le combat du siècle bile combat mbër mi mag mi bëre ba bàyyi bëre ñu koy wax Mbaye Samb joxe na ca xalaatam kan moo dàq bëre ñaari mbër kan moo ëpp sens ci wax na ko ci journal bi yemul ci boobu bile combat diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux waaye diggante Boy Niang Tapha wax na ca xalaatam ba ci combat guy gi Reug Reug joxe na ca xalaatam lam ca njëkk a xamle mooy bile combat bu changement amul boo moytuwul danañ gis kaaw ñaari mbër yi nanu bëree woon bu njëkk buñ ca soppiwul dara seen combat bi mën naa jeexe kaaw nanu bëree woon bu njëkk ñoom ko changé wut seen bile combat mën na am kaaw rax ca dolli ne seen combat bi passé Gris Bordeaux combat bu baax la def gisuñu ci benn yoon mu def erreur comme ni mu ko doon defee ci yeneen combat mi li ni mel rek moo taxoon Balla Gaye 2 gagné ko pari point waaye bu fekkee ne danoon répété waat même combat dana am diggante Boy Niang 2 ak Tapha mu ne combat bu nar neex combat bu nar metti bile combat li ma ciy tiital Tapha mooy problème encadrement ay victoire am toog cee guy gi mi tegalee année blanche faaw seen combat neex bile combat ñoom ñaar ku ci nekk da ngay def la différence guy gi ma nekkoon ca États-Unis te bëgg def différence ci digganteem rëg-rëg dafa fas yéene dellu ci réew mi moom guy gi ñibbisi ci réew mi lay wàcc semaine bi ñu dëgmal préparé si combat moom la doon di simpi ku ko séntu ci réew mi ci week-end bii ko gis kanuy séntu ci arène bi ba léegi te gisaguñ ko fësal ña ko làmb booleel Modou Anta ama neex Diène Kaïré ñoom ñëpp ay adversaire am lañu moom les deux pare woon na noppi woon na ngir bëre Quench gannaaw ba Quench amee combat digganteem ak double moteur Modou Anta ama neex Diène Kaïré ñoo ñë la ko journal bi limal ñeneen ñu journal ba lim mooy promoteurs yi investir seen xaalis ci làmb ji ñoom fa ñu tëral seen xaalis fa la tëdd ba léegi amuñu ca pexe ña ci jot a dugal seeni xaalis tànk corona jeexul duñu jot seen xaalis tànk corona jeexul duñu tëgg combat duñu tëgg lu combat saison 2019 2020 bi ñu nekk it tànk corona bi jeexul duñu fi gis bilan bu baax écrit Falaye Baldé la journal combat la ñu am deux victoires deux défaites écurie Falaye Baldé bu Ama Baldé exil Baldé ñaari victoire la ñu am ak ñaari défaites Falaye deux ma fi nekkoon doon defi jaloore moodu moodu ji na ci États-Unis maalaw seeraas kenn déggatu ko kenn gisatu ko Alaaji Mbay borom pecc mu neex ma Adama Diouf moo ko freiné seen ñaari victoire yépp ko laa moo daan am site Boy Baldé daan Boy Diouf seen ñaari défaites ya Mam Mor bu lee Tigre moo daan Boy